yàllaa ko defaral boppam ana afsaxu man nataqa bi daad ak addabani rabbi fa xasana taadibi yooyu yëpp nee na sama baay yaruma sama maam yaruma yàlla ma yaral boppam yonent bi moo ko wax te ku ne xam na ni yàlla ko yaral boppam waaw mel ni kon nag comme ñi fi nekk ñëpp ay taalibeem lañu ñu bàyyi ko xel ci loolu ay ñi fi nekk ñëpp ay taalibeem lañu te la mu waxoon rek ci ñu ko ci dafa ni bi honnête la honnête la dafa ni yusuf ëpp na nit ëpp na nit ndax yusuf kan ñu ni yusuf euh, c'est le plus grand gestionnaire de tous les temps de tous les ñu ni ak lan ñu ni yonent la itam parce que bu woon moom faraay na yi jeex na lekk nañu li ci suuf si ba mu jeex mais moom moo tëral ci façon bu nga xam ni fu économie dee woon rek tekkil na ko boole ci di yonent encore ñu ni ku ko jur ñu ni yàqub moo ko jur ñu ni yàqub lan la ñu ni philosophe la yonent la seetal loolu ñu ni yàqub ku ko jur ñu ni isxaq ñu ni isxaq lan la ñu ni yonent la homme d'affaires ñu ni Isxaq ku ko jur ñu ni Ibrahim ñu ni Ibrahim lan la woon ñu ni patriarche la prophète la euh, yonent bi nag ni loolu ndono loolu ci benn nit ne yàlla rek ko mën a def ci benn nit Yuusuf doomu Yaaqub Yaaqub doomu Isxaq Isxaq doomu Ibrahim boobu ndono fu ko nit jëme ñépp di yonent te ci dara waaye moom it boobu cër la am boobu cër la am te moo leen ëppale nag ma wax la ko tey waaw moo leen ëppale waaye tey ñan ñooy ay taalibeem ñi fi toog ku ci xeeb sa boppit taalibeem nga waaw ñii la am comme taalibe kon nag ñoom itam du ñu mën a def lépp waaye luñ ci mën a dabaatal rek ñu dabaatal ko loolu rek mooy li am solo mag meeg ndaw meeg ñëpp ci yem góor géeg jigéen jee ci yem ñëpp ci yem parce que lu jekk la lu jekk la parce que réew mi nag aada soreel na fi de aada soreel na fi soreel na fi bu mu ëpp waaw ñu di ci bàyyi xel ci boobu wàll ah gannaaw bu loolu passé tabarkalla la ci barki kilifa Euh, kenn ku ne war na santu moroom kenn ku ne war na ñaanal morom kenn ku ne war na yéene yiw moroom parce que li nu am ci sunu turu kilifa la nu ko am bu doon ñun rek du nu ko am tabarkalla tabarkalla moom it ci turu kilifaam la ko am bu dul woon kilifaam du ko am kon nag yàlla yàlla yàggal ko kenn ku ci nekk yàlla jëriñ la ci barke yonent bi may la ci leeram tabarkal la ndax itam ah bés dana ñëw nga soxla ko waaw dafa am sama benn yaayi daara bu dëkk fii ci Morolan doom baa ngi ci mbooloo mi doom bi ni ma danga nga war waxtaan ak jigéen ji ndax ba léegi bàyyiwul tollu dër yi moo dem te màggee na nag mënatu ko ma ne ko baax na su fi dikkatee ma wax ko yàllaa te jigéen ji ñëw ma ni ko doonu dimbale nag nga bàyyi tool yi da nga noppalu mu ni ma moom ku dee ma ni ko am ah, mu ni ma ñaata jamono ngay am ci sa bàmmeel ni ko dana yàgg ni ma kon bàyyi ma ba ma dem foofu ma noppalu waaw ma bàyyi ma ba ma dem foofu ma noppalu aw ma lu ma ca teg wax dëgg yàlla pour wax la ni dañ koy soxla dañ koy soxla wax naa leen rabbana amatana natayn wa ahyaytana natayn ah moom moo xam nu mu koy def waaye kenn ku ne di soxla wéetoog moom bés ci sa soxla bopp mu mel ni kon nag bu ko ñëpp bañee itam ndax Seydi El Hadj Malick radiallahu taala anhu daan wax ni nee na yàlla li mu bëgg du ko bañ mukk li mu bañit du ko bëgg mukk xëy na doomu aadama yi ñoo mel ni ñu mel waaye du tee rek nu jéem waaw nu jéem sëñ Babacar nee na nu jéemam jooju lu ne xaj na ci nu jéem parce que kii jéem itam bu nee dinaa dund téeméeri at rek yàq kii jéem dafa naan xëy na mën na am ma jóge fi ëllëg kooku du tàyyee jéem waaye ku ni téeméeri at lay am na kooku doxul ah te itam sëriñ Alioune Gueye daf daan wax ni li yonent bi wax yëpp kenn mënu ko jëfandikoo parce que ku ko jëfandikoo di yonent bi moo ma ko wax nee na li yonent bi wax yépp kenn mënu ko jëfandikoo walla ku ko jëfandikoo di yonent bi nee na kon nag danga ciy tànn li nga àttan nga jëfandikoo ko mu ni seen maam nag bi mu ci gënoon a tànn moo di tarkuma la yax ni ñaari baat la waaye defar na àdduna ak àllaaxira tarkuma la yax سرين شيخو دفا دان وخني آه. انما الاعمال بالنيات نانا دوينا طالبي نياري بات لا واي دوينا طالبي انما الاعمال بالنيات با تخنا لي يوننت بي واخ ياب كوكو ديف دي يوننت ني موم تا منول نيك كون نك داغا تي تان لا تولوك يو nga diko def rek te bañ ko xet bo de dem sa club yobale ko yóbbaale ko boo dee dawali sa auto yóbbaale ko ndax fokk nga organiser sa intimité avec le ciel il le faut absolument Boudé fo tollu nak nag du def la nga wara def bobu yef yi baxna na chauffeur chauffeuru taxi bi du ko té def taxem bu euh menuisier bi du ko té def ligéyam bu dee don rek il le faut absolu ko defee nak yi ci dess nak ay détails la euh wayin bu ëpp ak bu ëpp yoy yooyu yëpp waxtaan la rek yoy yëpp waxtan la rek ndax itam ah la Xaamid Maxtaar waxoon bu Mahand بابا تما Mahand بابا ci ak paab yi la bok sidil haj malik dina ko faral di cité ku ko fonk la Sidi Mahal dom bi ken melul ni moom Makhtar Makhtar Hamid tabarakallahu e muy tag ben nitu yàlla nak xam nga dañuy tuddu sawtul khazaf صوت الخزف لا فوا دي بيرل موكو جيك جوخ فالير فلا تصغوا الى خزف فلا تصغوا الى خزف ولكن لجوهرة الكمال صغوت صغوة خمولوني مختار حامد نينا كدق بيرو فرغي بابو بيرو كروس جي دفلا صاري تبير بير لرك waaye per bi ñu wut pour jawharatul kamal bokkul ak per bi ñu wut pour def ko fer booy dégg bi toujours doo dégg bi booy dégg bi toujours doo dégg bi moo tax mu ni ko falaa tasoo ila xasafin sawtul xasaf loolu kenn mësu ko gis ah kuy def foo tollu dégg baatu fer dootoo dégg baatu kurus fala tasxu ila xasafin walakin li jawharatil kamali saxawta saxwa defoon way bu rëy ba ci ndakaaru dégg naa ci qadi Mouhamad Abdurahman mu ni bu mu jàngee woy bi dafa tëdd guddi gis ca ndakaaru lu safaanoo ak li ci woy bi te moy dakaru defu muju salte muju yàqu te bokul ak li ci way bi bokul ak li ci way bi barqun barqun ta'allaq fastatara ataara nawmi وهيج للدكار دكاره loolu waroon na tax tey ndakaaru ku fa dox doo gis salte doo gis ndox bu tilim doo gis leneen ndax itam ki ko woy ci aqtaab yi la bokk ngir bëgg ñu jàppe ko noonu bu mel ni kon nag jàmbaar lañu mas na way sëriñ Babacar way way bu yéeme la fa ma taqwa alayka nafsu fa ma taqwa alayka nafsu yaa baalaka taqwa fa kayfa alayka taqwa wala yaqwa alayka hawan walakinnamaa yaqwa alayka hudan wa taqwa waaw hmm? ba tax na seen yaakaar yooyu nu ñaan rek yàlla dëggalal leen ko waaw yàlla dëggalal leen ko ba ndakaaru mel na mu meloon na mu rafete woon man bi ma ndaw nekk dakaar ak dakaaru léegi gi xàmmeetuma ko wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ah te booba ndaw la maa ngi nekk foofu ci rue di jàngal xuraan kenn nekku fa woon man rek maa fa nekkoon maag Haaj Maxtaar Bab topp àll bi rek ba àll ko wallaay ndeysaan àlluwa àlluwa àlluwa àlluwa àlluwa rek tabarkalla tabarkalla ah ndax dañu wax ni pencu daara ñetti valeur ñoo fa am àlluwa xaalis ak jongama boo jëkkee àlluwa yàlla dimbale la nga am jongoma am xaalis boo jëkkee àlluwa boo jëkkee jongoma yàlla fexe ba àlluwa daw la alal daw la boo jëkkee alal yàlla fexe ba àlluwa daw la waaye jongoma du la daw ñetti valeur yi rekk ñorom moo lay won ni ku gimmi rek war nga jàng waaw ku gimmi rekk war nga jàng waaw bu alal ñëwee fekk fa jàng bu jong ma ñëwee fekk fa jàng waaye bu jàng amul àdduna bu tukki la yooyu yépp dañu ko daan wax nu gàddu sunu àlluwa fu ne nu dem fa fu ne nu dem fa maa ngeen nettali léegi ci oto bi wax ni kër gi Euh, gisuma ci woon ku gënoon xiiboon El Hadji Abdoul Aziz miñ ma joxoon man muy dima jàngal alquran ba dañu xëy rekk fa bu dem Guinguinéo dëkki fa euh, góor gu baax nekk fa tey aide médecin bu ñuy wax Mathurin Diaw diko ko be mais comme kenn nekku fa woon maa fa nek may baxal ndox yi may tal cuuraay yi may defer neeg bi booba ken nekul man rek ma fa nek diko def mu melni kon nak ah tabarkalla tabarkalla xeebuma ko xeebuma ko ba tax na kon bàyyi ci xel farata la bàyyi ci xel farata la bàyyi ah te itam yonent bi daal wàcc na wàcc na waseet ndax kat diineem amul dara lu ci nit di def te du ko amal njëriñ filosof yi wedd nañu seen bopp scientifique yi wedd nañu seen bopp kon nag dëggu yonent bi moo fi des li ma gis benn philosophe wax ko nii moom nangu na ni yàllaay rey nit ñi waaye liir la nanguwul ni yàlla reyu ko ndaxte su yàlla reyee liir rekk moom yaakaaram yëpp dafay tas daa liir dafa tuuti kooku xam-xam la kooku du xam-xam ndax yonent yàlla Isaa dafa waxoon ni ki tibb poussière tàllalaat loxoom muy yàpp nee na kooku sañ na bankaat loxoom muy poussière mu delloo ko ci moo tax yëpp ci loxo yàlla la nekk yëpp ci loxo yàlla la nekk boo ci bëgg a weddi rek weddi li ci des yëpp te ko baaxul waaye aada aada aada moo ma tawatu aada moom ma tawatu ñu bàyyi ci xel rek aada nag buñ ko dee wax mooy lépp loo xam ne rek dana choqué nit lépp loo xam ni dafa vulgaire lépp loo xam ni itam euh, boo ko dee def loo def ci wàllu yàlla mu lekk ko kooku jaru ko ah te ñu bàyyi nag suñu kilifa yi ñu giddi ñu ku ko am comme kilifa mën na la gidde ñu bàyyi leen ñu gidde ñu ba tax na kon nag nuy ñaan rek yàlla may nu nu dajawaat fi déwén ak jàmm nuy dellu di leen ndokkeel ci guddi gi ndax itam guddi mel na ni coono la waaye du coono waaye yonent bi moo ko moom te ñi fi nekk ñëpp dañ ko sopp tabarkalla tabarkalla te mu jar nag ñu di ko sopp ndax ko yàlla sopp ñëpp sopp la te ñi fi daje itam nag jàppe seen njaboot ci yonent bi moo tax ñu daje fi fa tabarakallah ahsanul xaaliqin am na ci yu kenn mënul wax sax li ñu ci sonn ci yiw yal yàlla fay leen ko ci yiw ñu jariñoo ko ci biir jariñoo ko ci biti mu mel ni kon nag li ci des mooy e nu bàyyi sunu xel ci sunu bopp rek te yokk taxawaay yokk yitte yokk ñaan loolu ëpp na ñàkk def sax ok eh, mu mel ni itam rek ndeysaan waaw kay mu mel ni itam kilifa yi fi daje tabarakallahu bég nañ ci lool ndax yàlla ko dogale noonu xam naa ñi ciy doomi daara bu ñu yeboo xam ni ñoo moom yëfi autorité yi itam tabarkalla tabarkalla tabarkalla la seen bopp leen fi indi waaye baatu kilifa leen fi indi yàlla xam na ko bi may génn léegi la ma ndaw wax ni ma président yónnee woon na la léegi ndaw dafa ñëw fekk ñëwaguloo wala bu ngeen ko gisee ngeen ni ko wax nañ ma yóbbanteem waaw kooku farata pire la pour ngeen wax ko wax nañ ma yóbbanteem tabarkalla loolu rafet na ndax itam tabarkalla moo jëkk ñëw fekk si ma Égypte gane si ma fa boobu ma ngi nekk ambassadeur mu ñëw fa depuis ñu ngi def nii tabarakallah ah nun nag bëggunu ngeen am ay li nu bëgg mooy ngeen am jàmm waaw ah, li nu bëgg mooy ngeen am jàmm li nu bëgg itam mooy nit ñi am jàmm ngeen am jàmm nit ñi am jàmm ngeen liggéey nit ñi liggéey parce que bu ñu liggéeyul itam yàqu-yàqu bu rëy lay doon jéem liggéey rek parce que liggéey amul amul lu ci nit di bañ dax moo fi nekk moom rek moo fi nekk tabarkal la sëriñ Aliou dama ko daan tooñ ni ko lu tax ngeen di lekk àddiya mu ni ma loru loroo tax nu di ko lekk moo <laughs> ko ko waxee rek mu ni ma loroo tax nu di ko lekk ah koo xam ne lekk métti gan na ci yow mu ni ma kooku kay àddiya boo ci jotee du gis biti addiye moom boo ci jotee du gis biti ma danoo sonn ma loolu moo tax ma ni ko waaye métier lañ leen wax mu ni ma ah, fii ma toll ñoo toll de mënuma jàng métier wallaay ndeysaan boo ñëwee da ngay defe nit tabarkal la ay doomi bàjjen lañu di soow rek waaye rek tabarkal la tabarkal la liggéey moom farata la lu ci nit man rek mu def ko waaye ñàkk koo def moom kooku ëpp naa def sax ëpp naa def sax mu mel ni kon nag li ci des moom fa inna mumbatan fala ardan qata yonent bi nee na diine boo ko ëppalee yaaree sa bopp ne def ci li nga man rek boo ko ëppalee yaaree sa bopp boo ko ëppalee sa bopp boo def ci li nga man rek boo ko ëppalee yaaree sa bopp fa inna mumbatan fala ardan qata waaw na ku yenu lu ëpp doo dox lu bare moo ko waxal boppam de nee na ku yenu lu ëpp doo dox lu bare ku yenu lu ëpp doo dox lu bare tabarkal tabarkal la ku ci ne la nga mën a fort rek nga fort ko sëñ Babacar nag nee na ñaar nee na ñaar sëñ Babacar si nee na ñaar bu néewee lor nee ñaar bu néewee lor am-am ak xam-xam ne bu néewee lor nee na am-am loo ca am xeeb ko xam-xam loo ca am xeeb ndax bu néewee rek lor ndax daf dul jariñ dara am-am ak xam-xam moom daal loo ca am rekk bu mu doy mukk tax nag noflaay amatul ndax xam-xam ak am-am coono la laaj te nee lu ca néew yàq kon nag booy boo fexe ba mu bari rek nee ndax bu baree rek raxas boppam wa tabarakallahu loolu mooy li nga xam ne moo ci ne ñu ñaanal ñëpp te ñaanal sunu bopp autorité yi fi nekk ak yi fi nekkul yépp nu ñaanal leen la sang yi fi nekk ak yi fi nekkul yépp ñu ñaanal leen wëllëri yi fi nekk ak yi fi nekkul yépp nu ñaanal leen tabarkalla waa daayira bi nga xam ni ñoo taxawu lii itam ñu ñaanal leen da ngeen yàgg ak seen patron du dëkk waaw la ëpp naa xeeb di ëpp naa xeeb ndax ñoom may seen maam may seen maam seen patron du bind mukk te du loolu lay wax maamu mustarshidin yi moom rek la may bind waaw oo oh, nag may seen maam tabarkàlla gannaaw ba sëñ Babacar nekkee seen maam ba noppi may seen maam waaw loolu la yàlla dogal te itam rek pas-pas baax na fit baax na pas-pas baax na fit baax na pas-pas baax na fit baax te lu ci ne ci jaar moo tax nu di leen ko wax waaw keroog sama soxna damay xool ba mujj mu ni ma yaa muñ ni yàlla <laughs> ma ne ko yàlla muñul dafa dafa dënniirlu waaw ma ne ko ni tey muñ ma ne ko yàlla dafay dënniirlu waaw ma ne ko am nañu ko doon lëjal ak di lëjal yonent bi du ñu ca kanam mu di leen may koogu fonde ba ba muy jot ci ñoom waaw koogu fonde ba ba muy jot ci ñoom fonde waxu tubaab la bu ñu yàq fondu la ñu ngi ko jële ci espagnol yi portugais yi waaw amul sa werante bi ma fi waxee ni ceebu jën du suñu plan national jot naa lu mat juróom benn téeméeri lettre ñëpp di dal ci sama kaw ni ceebu jën kay mooy suñu plan national ma ni lu déedéet ñun laaxu caaxaan mooy suñu plan national amul sax werante ku ku gis ceebu jën rek xam ni du cuisine sénégalaise cuisine européenne amul sax werante waaye ñi ma waxoon ñëpp dañuy xund rek waaye duñ la jox tontu boobu nag moo baaxul waaw boobu nag baaxul nit ki moom danga koy jox lay wóor waaw waaye boo ko joxul lay xanaa xund rek moo leen ne Sénégal kana ko tuddee sunu gaal eh, ku ne mer waaye it doo wax dara dangay kii rek xulo xulo xulo wax rek waaye sunu gaal la kay sunu gaal la kay ma ne waaw kooku ko jëkka tudde kay laa laaj parce que sunu gaal dafa jege bu mu ëpp dafa jege bu mu ëpp waaye kenn du la wax loo xam lu dul mer rek mer rek tabarkàlla Sénégal looloo fi xaw ku xunde rek daal di ni maa tey waaw ah, maa tey nag du tontu wallaay ndeysaan waaye kenn xamul ba tey sunu mbaxana sunu mbaxana mooy lan ñu ni maaka ma ni mbaxane chinois la moom koy wax leen sunu mbaxana ban la da wax sunu plan national ban la te wax ku nu tuddee sunu gaal ndeysaan am na xale bu baax ma ci defal document yu am solo ma nga ca Casamance ci daayira bi la bokk wallaay ndeysaan wallaay yàlla xam na ko xale bu amul moroom ci sëriñ Moustapha mii la ko jaarale jox ko ko ni ko jox ko sa bopp mu jox ma ko la ay liggéey ni ci liggéey bu rëy loolu mooy dëgg waaye maa tey du du tontu maa tey du tontu ba tax na kon di leen ñaan rek lu nu leen tëti bu nu leen ko laajee ngeen laa biire ni te bañ ne rek no no nangam nangam nangam nangam tabarkalla mu mel ni kon guddi leer la guddi barke la mu di ci ñaan sunu soxla ci zahir ci batin ak di bët ci ñi fi teew ñëpp ñi ciy wàllu daara yi ñi ciy wàllu autorité yi nu ñaanal leen ngeen ñaanal nu ñun ñu bokk jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom rek la nu am nag moom la nu am amuñu keneen tabarkal la ah bu ko defee itam dama da waxoon rek moom itam léeg-léeg rek mu buudee rek buude buude buude لقد رفعت رايات اسلوب شيخنا لقد رفعت رايات اسلوب الشيخ لقد رفعت رايات اسلوب شيخنا ومن شاء فليؤمن ومن شاء انكر ضمان نبي الله نفي انقطاعه الى اخر الدنيا عن الشيخ قرر والله والله والله والله والله, والله wa wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan eh, dañu toog maa ngi ko nettali mas naa ko mas naa ko nettali fii benn gendarme mu ñëw indi benn leetar ni sëriñ Baba jàngal leetar bi ma ni ko gouverneur bu Sénégal moo bëgg nga dajeek moom alxemes ci kër chef de subdivision ba mu ni ma loo ci xam ma ni ko bul dem ne ko bu la soxlaa na la fekk si ma tontu ko wax ko ko jox ko chef de subdivision bi mu dem jox ko ko Seck mu yóbbu ko ci gouverneur comme gouverneur kàddoom dafa rëy ci moom ñëwul na ba ca kër chef de subdivision ba toog fa bu ma trente minutes sëñ Babacar demul Je dem directement Dakar pour informer au commissaire ma à ba Je suis à téléphone Je ni ma à bañ lo sa papa à ko ma Je papa sama kilifa la Je ni ma Je ni gouverneur du Sénégal mo fi représenté la France ma ni ko xanaa xamuloo ni moom itam moo fi représenté yonent bi ni tuuti rek boise palant ni dërër ni ma lu xew ma ni ko ci lu deme nan mu ni ma ah man kat affaire yi daf may bëgg a jaxal ma ni ko dara xewul ludul dañoo am ay habitudes yu ñu leen war a génne parce que du dëgg li ñu nekkee du dëgg ñoo nu coloniser waaye am na ku leen jëkk ci nun ma ne ko am na ku nu jëkk a te kooku moo ñu marqué waaw ma ne ko kooku moo ñu marqué walladi anshaakum fi l ard wa staamarakum fiha ma ko loola tax mané ko gor gui du déplacé parce que mission ma ëpp doolé lool mu ni ma baax dal di dem rek ëmmatee responsable yi parti bi yépp ni len jóg len parce que Cheikh na duñ ko bàyyi ci bi situation mukk ko né na ci jël responsabilité ñu que beaucoup de vers une heure du matin heure du Sénégal téléphoné Il ma dama la bëgg le pour nous. nga ma góor gi ma ni ah, bu de du neex ne ni aucun. kon xëy de 8h heures ak ma ni ko ah, te fekk jikk loolu commandant cercle moo ma jëkk a woo di ma ëllëg danaa fi xëy si pour wax sa papa ni ko lii nga ko tere ministre de la France d'outre-mer yëg na ko président de la République française yëg na ko waxa waxa wax su ëllëgee nag dinaa ñëw dem ba ci sa bàpp wax ko te ëllëg sama waxale ñi ma ci wóor man leen commandant Sakkal dina fi ñëw buleen ko bàyyi mu dugg ci kër gi dafa am lu ma toppatoo ji mais na ngeen ko téye ci bunt bi ba ma dellu si naka ñëw rekk xale yi téye ko mu def yëfi xel merul xanaat toog mi nga amee otom es tuuti mu génne di def waaye bien ma agsi mu ni ma ñëw naa bu yàgg mais ñu téye ma ma ne ko mel normal la situation bu mel ni nga crée ko ba noppi ñu di la bàyyi nga dem di gisi góor gi te fekkewuma ko mënul nekk ma ne ko lool rekk la du leneen bon mu ni ma kon nañu dem ñu seeti ko ma ne ko ay ñu ñëw ma toog loo ko mu toog ma dem seet góor gi ma ni ko commandant cercle moo laa seet ku yarul la nag sëriñ Babacar Si waaye ku bari fayda gis naa rekk am lu mu bokk xaw ma lan la mu génn si ci salle bi génne ko nag muy benn boîte mu jox ko commandant cercle ñu ko kii rek làmb séq ak yéen mooy li ñuy tuddee médaille kon yóbbu ko da am teggin ñemewul jël boîte ma ni ko jël ko ma ni ko parce que moo la ko jox jël ko amu ci pexe mu jël ko yàllaate bi gouverneur di xëy si nag pour seet si ma mu indaale boîte bi waaye li tax ma xam ni jàmm ko indi woon mooy bi may téléphoné daf ma ni mon cher ami ma xam ni loolu moom ma xam ni jàmm am na yàllaate mu indiwaat boîte bi nag dem ci góor gi mu fóon ko fii ni ko daal di defara defar ba mu baax saan bi mu tàggoo bay dem nag ma ni góor gi gunge ko ne ko nag a fi des pour wax la ni lu ne bu ñëwee da seet foo ko jaarale waaw lu ne bu ñëwee da seet foo ko jaarale parce yi yàlla leen moom moo leen jox xel moo leen may ñuy xam ne ñuy tëralee stratégie waaw te itam rek bu àndeek franchise rek yàlla dana ci wone bunt dama am sama benn xaritu ambassadeur fii mu ni ma na nga ñëw kër ga añ ma dem ni ma dafa am lu ma d'accordul ak yow ma ni ko lan la mu ni ma boo jëmee penku dangay wax ni penku nga jëm te loolu kenn du ko def ci biir jamono bo jeme penku da nga nan soowu laa jëm ah, ma ni ko parce que kooku politique français yi la te man anglais la gëna naw ci côté boobu maniko ni ndax ñoo wax ni la meilleure des politiques c'est la franchise ma fofu bind ba ci ñom la ko jële français yi nak ñoy def ni di kalaw kalaw mu ma waaw kay xamé wu mako non maniko nak xam ko baax ba tax na lu ci ne na ànd ak franchise rek yàlla rek a fi ne waaw yàlla rek moo fi ne wal jooju daf daan wax ni Cheikh Tidiane bu bëggul woon dem prison du ca dem te bu toogoon ci daaraam ak àddiyaam ak ca bi jënam du dem prison mais moom moo préféré dem prison te dëgg la te dëgg la loolu moo am j'en avais besoin sincèrement ça c'est à man ah wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan gis nga Seydi El Hadj Malick radiallahu taala anhu gouverneur daf ko ni góor gi dafa am lu ma jaaxal ci yow mu ñu ko lan la mu ni ko yaay sunu xarit yow yaay xaritu France loolu la ñuy wax yàlla nañu woo kaw mu ni ko yow yaay xaritu France mu ni ko ay dafa am lu nu jaaxal mësuma laa wax mukk loo def ma dee laaj loolu lu ko sabab mu ni ko dama am jom te néew doole yéen ngeen am jom te bare doole waaw bu ko defee bu ngeen ma santee ma ni waaw waaye bu ngeen demee it ma lànk mu ni ko lool rek la waaye mësuñu ko sant lu mu def nag mukk ba tax na toujours bu pas-pas amul rek yëpp yàqu bu xel amul yëpp yàqu bu taxawaay amul yëpp yàqu tabarkalla la eh, te tubaab yi xas nañ ñu jox suñuy indépendance ba nopi amna taxaway ak jema ser funu rek funu funu funuy jaar taxaway ak jema ser rek funuy jaar lol rek moy li nga xamni mo am solo ñu ñaan rek yalla nu te omat nu jaaral ñu ci yoon yi gën bax yalla nu yalla defal wa tabarakallah guddila go xamni ku sañoon fi ngay tok ba yor yor rëy na ci nun te itam dara taxul lu dul yàlla ak seen jëm ndax dañoo xam ne yonent bi yéen la fi am moo tax daje bii am am bi mu leen am moo tax moo tax daje bi am tabarkal la mbokk yi fi daje